dañ ko jëpp du gagné donc kon candidat bi am na lu mu war a indil boppam dolli ko ci li ko président di indil Ali c'est quelqu'un que je connais très bien Ali Ali xam nga jox une petite histoire pour vous dire que on est très proche on est assez liés gis nga élection présidentielle il avait un mouvement politique jamono yooyu Ablaye Wade da ko doon dragué mook Habib Sy pour dugal ko ci gouvernement. Hmm? Ali ñëw na toog sama kër ànd ak Thiaw Kandji ñuy waxtaan ci lu son avenir politique ma ne ko li ma lay conseillé du foofu du ci Ablaye Wade boobu ce serait une erreur politique de d' dans dans cette dynamique là qui sera va dans l'opposition si tu si ton candidat ne gagne pas il sera de roi et ce qu'il a fait. musuñoo tàqaliko dañuy waxtaan di diisoo mooy laaj sama xalaat ma ko koy wax donc kon jàpp naa ni que am na un poids politique euh, léeg-léeg mu gis lu ko jaaxal mu woo ma wax ceeg moom ñu diisoo weccoo xalaat kon am nañu ces cette relation là am naa ko ak keneen ak keneen donc am na ay atu atu yooyu ndax doy na campagne électorale nag comme ni mu la nit ki dina indil boppam lu bari parce que campagne doo doo doo ñu ni prix rek départ nga gagné ah da nga ci biir campagne bi ngay wane lu tax ñu euh, sa discours sa comportement na ngay doxalee ak la nga la Sénégalais yi xaar ci yow mën nañu dikk dama lay jox benn exemple François Hollande à onze mois de la présidentielle bi muy falu bi muy falu il était à 3 pour cent. on l'appelait dañ ko doon tooñ naan monsieur 3 pour cent. monsieur 3 pour cent. <laughs> tout le monde se moquait de lui. tout le monde se moquait de lui. mais dafa def une campagne bien élaborée bien chevillée ba gagné contre Nicolas Sarkozy. et puis c'est dépeint comme un personnage hmm? austère. Hollande euh, mi bi muy commencé avec En Marche. on prenait pour les genoux que peut-être que c'est les le pouvoir de l'argent les banques et cetera ils étaient dans il était là pour euh, Euh, euh, Macron bi bi muy commencé on donnait pas trop cher ses chances les gens pensaient que euh, d'autres allaient être élus à la place. mais les gens pensaient à des Fillon et autres. oui était très proche. et tolof tolof am na il a perdu donc élection elle n'est jamais gagnée d'avance elle n'est jamais perdue d'avance. mais mais ci candidat